di la ziyaare bu baax di nuyu monsieur le ministre di nuyu suñu seer collègue député yépp ma collègue bi fi wàcc nag moom dana dina transimer incha allah parce que Amadou moom day gagné li ci des ñun procès bi lu tax ñu war ko voté dañ fi yàgg indi ay mbir nañ ko leeral gisuma lu war a tax ngeen bañ ko voté yéen ñi comme leerlu la rek kenn waxul tëj kenn waxul jàpp kenn waxul leneen dañ ko indi pour que ñu leeral askan wi li nga xam ne population bi peuple sénégalais yi ñi ngi koy xaar ci sept juges yi nga xam ne ñoo war a àtte gannaaw bi ñu demee ci mbañ gàcc yi ñooñu buñ leen tuumaalee dara dañ ko war a leeral sénégalais yi ndax am na walla amul loolu dina tax ma voté loi bi procès euh, euh, euh, de loi bi li ci des seetal suñu candidat bi nga xam ne xam nañ ne da ngeen ko tiit ñemewu leen ko danañ ko voté pour moom seetal deram aussi balaa ñuy dugg ci leen mais ki nga xam ne nag mooy ndey mbill gi mooy le président de la république Macky Sall borom pont yi ak autoroute yi borom forage pastoraux yi ak piste production yi borom bourse familiale yi borom couverture maladie universelle kiy dimbale néew ji doole yi bu buñ ko buggee gàkkal ci affaire koo xam ne rakkam la muy Karim Meïssa Wade loolu dañ ko war a leelal Sénégalais yi ne moom bokku ji koo xam ne nee na man bokkatuma te yoon may ko mu waroon bokk buñ ko ci buggee tuumal ñu war ko mën a leeral buy dem mu dem ak grand mbubb bu weex tàll nga xam ne benn gàkk-gàcc gàkk-gàkk du ci am loolu mooy waral danañ ko topp ba mu leer ci bopp sénégalais yi lépp lu mu laaj nag ñu euh, xam nga yéenay wax bëree bëgg a bëree bañ bëree xam nañ ñi nga xam ne muñal président makisal Sall yàlla musal na ko musul dégg muñal kon bu ñuy tiit bëre moom mi tànn mbërëm xam na ne mbërëm bu mu tànn aussi du dégg muñul mais dañoo laaj sénégalais yi koo xam ne moo war a àtte ay nit tuumal ko mais war nañ ko leeral loolu warul indi ay jiiki jaaka ak leneen li ci des monsieur le président assemblée nationale sénégalais yi ak nit ñi nañu nañu àtte ñi nga xam ne ñooy wax fii ndax suba tey ñu wax li suba ñu wax loo xam ne dafa safaanoo ak li nga xam ne moo leen taxoon jóg dama jàpp ne seen comme yéen amatu leen mbër suma xarit kunkaane mu ngi ci biir donc fexe leen ñu ngeen indi ko amatu leen candidat yéen ñii kay yéenay wax waxu waxu leneen mais du ñun dama ñaan ñu voté loi bi jàppale président leeral askan wi ne ñii la demee ku ci tàkke ñi ne la yow la te ñu tëjuñu tijjiwuñu defuñu dara allahumma salli ala sayyidina